Pero bëggee waat ni leen ziarat leen bu baax a baax joxaat leen seen wàccuwaay bu wéréw di nuyu kullum kuy safoo wasaare rek bëggee naa la bu baax a baax ziarat joxal sa wàccuwaay ñu jëm journée la la kat soo ne la kat nag ku ko xam-xam ne journée la boo xam ne journée bu doy waar la journée espoir la ndax soo xoolee amateurs yi ñoo ko tëgg ñi nga xam ne dañuy dundal làmb waaye dundee wuñu làmb ñoom ñoo ko tëgg seen président nekk Gora Ndoye ay Mor Diouf ñoom ñoo ko tëgg tëgg espoir yoo xam ne espoir làmb a bàyyi xel la ndax soo ne Batista booy Sadio xooxoo loolu lañ jaar dem la waaye am na ni ko xale yi di waxe njool mu ñuul mi Bib Diop war a bëreeg Ama bu Kër Mbaye Fall loolu tamit lamb ji waa seen tóor te bëreeg bu diis bëri na espoir yi su nekk te ñu ñëw fan fii nii naataange fekk fekkan Bib Diop fii si shop boutique nga gis ko li muy jaay nii macha allah laf cat waaw xale la bu gëm boppam daal doy waar trop di jaay ay jiin yu rafet ay pile lépp lay jaay te ñu fi fekk champion bi Bib nuyu naa la. Idy maa ngi lay fay. sant yàlla bu baax. ginnaaw bootu onze billahi mina seetaan rajim di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur. di nuyu waa kër Seexna Seex Saad bu di nuyu waa kër Seexna Seex Saad bu. lu seex naa Seex Mamadu Faadal banni maamin di nuyu sama wasila Serigne Bassirou Diop ibnu Seex Amad Diop ibnu Seex Saad bu Diop. di ka siyaare bu wér a di ñaanal papaam Seex Amad Diop yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ñu te ñu si barkeem. di nuyu waa yëmbal fi ma nekk nii. di nuyu sama grand frère yi may toogal chaque jour di fereg ak ñoom ñooñu nii nga fekk fii nii di nuyu ndif moo nekk ci place am ndif soob di bëggee gaay yëpp waa yëmbal di nuyu ay Oussou Omar Ndiaye gaa yi may feregal tout génération lour yee mais Bib Diop nga jógee si combat naqare wutal adversaire ku ñu jox Bib Diop nga ne noo xoolal ma keneen ku ñu jox bi nga lam sa rêve la moo tax nga jël caatu ama waaw yaakaar naa ni sama ñaari combat yi ma mujjee bëri yëpp nii la ma dalee pour ma am adversaire yombul dañ may wutal adversaire booy bu ñu ma jox bu nangoo tey suba ay mbokkam bañal ko lamb yi yëpp yàqu comme noonu léegi nag fekk proposé woon nañ ma ama bii nii bu kër Mbay Fall léegi te moom la njëkk moom lañ ma njëkkoon proposé ma ni bëréew ma ak moom mhm. kon tey dernier moment bi laa dem ba xam ni toog bañ a bëre arrangé ma te su ma sañoon bëre balaa koor après koor ma tëj ak benn mu jeex ma ne léegi nañ ma dëgg la kon bi da doon tànn lu nooy moo tax moo tax mu bàyyi woon fi Ama non non dama doon tànn lu gën a metti non lu a nooy nga doon tànn dama doon tànn lu gën a ah, metti ah, ndax joxoon nañ ma si laay biri si li te yaakaar moo dëgg a a a diis kii Karbala bu Pikine moo gën a diis pour mujjee bëre ak Sa Thiès 50 waaw na bañ bañ war a a jëli suñu avance boo ko laajee moom sax woo déggee interview mi ngi koy wax. Mhm. toog nañ plateau Fan ma maa ngi moom. promoteurs yi Fan ñu bëgg bëgg nañ suñ combat bañ confirmer mu dem jëli grand combat benn adversaire mbëru Bawol xaw ma sax kan la. Mhm. loolu moo yàq suma kombaa ak moom mais maa ngi moom suñ combat confirmer te ama Karbala moo gën a diis ama mais yow Ama la leen njëkkoon proposé. Ama la ma njëkkoon proposé man leen wutal leen ma lu gën a metti loolu. da lu gën a nooy. non non wutee lu nooy. bi yow mosuma bëri lu nooy. da nga doon xool a nooy foofu nooyul de. mosuma bëri lu nooy. te booy bi nee la sa mer la fanaanoo fi ñu toll nii. bu fanaanoo mer dina demaat ak meram. Eh. nga xam ne man ba ma ba maa mer bu yàgg. yëmbal dafa dafa am lu fi ne ma war ko fay jëlee rek mer la. neen dafa am si yu mu jugee te si yow la war a rectifier dina si delluwaat nag neexam ak ñooñu noonu yaakaar ko ñu ko kañ jàppale la paam yooyu noonu. Ah. man lañ yaakaar. du man moom la wax la ak moom. li ma koy xam na ko. kon dafa am ñu ñu ko ñu si combat bi. ñu ne ko kañ jàppale la nga nekk mbër. Hmm. su ñëwee teel a di nga nekk mbër. waaw dañ cay nax. mën naa lañ jaar turam penn par penn. da nga dañ koy nax foo ko wékk. non na dem ma dem waxu de. la kaat dina leer. xam na li ma koy wax doful. yaa ngi may Diop. ama mi nga adversaire yi nga daan am at ama mi bokkut de. moo gën a nar yomb samay kombaa ndax combat boo Joola bi ma gën a gën a yomb. combat booy Joola sax xaw na def deux minutes. eh waaw. ndax man sama combat boo ko calculé lépp lépp lépp matul cinq minutes. sa combat booy loolu. moo matul cinq matul deux minutes. sama combat yëpp boo ko calculé total minute matul cinq minutes wala ci lay yem. sa si cinq combat yëpp cinq combat yëpp matul cinq minutes. woo calculé woo boole yëpp laa la wax matul Thiel maa nga daan ci trente deux secondes. eh. yaa ngi dégg. waaw Bécaye maa nga daan ci quarante huit secondes. Tafaleer Bécaye bu Kaw Tafaleer maa ngi daan ci une minute deux secondes. te trois combats booy Joola maa ngi bëree moom ci deux minutes. doomu loor maa ngi bëree moom ci une minute kon xam nga ni loolu boo calculé cinq minutes lay yem. cinq minutes ci cinq combats. ci cinq combats waaw. léegi nga jàpp ne kon bii mooy gën a gaaw. te bii mooy gën gaaw ndax li mu bëgg laa ci fekk si na ñëw imposé si moom mu xool. nee na yow li la gars yi di xaw a dawe tuuti bi Diop du gis ko. te nee na combat dafa fas yéene xeex ak yow. dina xeex nag bu ko waxul sax dina xeex moom xam na ko ndax mënuma dem fay xaalis bu weex tàll ñu inscrire ma saal bu seer ma fay entraîner mbër yu mag yi saal bi ñuy entraîner laay entraîner muy Siteu muy Eumeu Sène te ñoo ñu ngi xëccoo roi fu ñuy entraîner laay entraîner chaque jour. ñu fayal ma fa xaalis bu bari Zak Mbaaw di nuyu coach bu baax di nuy Xaadim Boy Niang ma fayal saal bi di entraîner ci saal bu seer di fay boxe di liggéey lu metti kon tey jii nii du ñëw ñu fayal ma box ma war a ñëw wane preuve nekk fi naan damay ñëw di jàppante di daan. dafa yomb yaa ngi lam laamee di yaramtalu nii. jàppal ne am nga combat de. Ah, di nga xeex di nga bëre jaaxaluma idi bi balaa ñu koy xam mu jeexal leen te mënu ma topp booyee di daan chaque jour su ma jigee si lii xam naa fa ma jëm. yow génn goo fi nga ne soo jugee am na foo jëm. jaaxaluma. jaaxal fi ñu toll nii wallaahi jaaxaluma. dafa mel ni fi nga toog nii dafa xaw a sedd moo ta non non loolu la ñu sant yàlla bu baax a ñi sonn ci man ñi may jàppale adversaire nga am de. billaay wallaay jaaxaluma fi yàllaa fi ne. ama day duma waate de. ay kooku daa mën duma ku mës a duma yow. ah déedéet moom daa ne na lu mu mës a am lu ko naqari rek. combat bii la la ko mën a fay ay supporter am dina amaat lu soo demee nga wax ko Bib Diop nee dinga di nga amaat lu la ko wax ko mu ama di nga amaat lu la su fekkee da ngaa a am lu la naqari ba nga dajale ko yaag say paa yooyu noonu di nga amaat lu la naqari. <laughs> munoo bàyyi paa li ma wax dégg naa moom yàgg moom la du yàgg paay. dégg naa lu ma koy wax. dafa mel yow da waa kër Samba bu baax nag da ngaa jël sa siis bu kat bu bu ko jël kër Mbaye Fall rek teg ko fa. waa kër Mbaye Fall. pare leen. xam bi mi ngi fa dégg kër Samba maa leen di bëggee. bu baax a baax waa kër Samba. maa leen di siyaar. fa yakaar yaakaar sama yaay fa la juddoo. Eh? fa la yaroo fa la màggee. problème yaa ngi démarré. noonu la demee nag. ñu ñëw di nuyu Diop Faye bu baax. ñëw si promoteur bi. waaw ñu nekk ay xale nekk ay espoir après tëgg lii yéen ngeen nekk ay xale muy président Gora Ndoye ay Mor Diouf jour bi est-ce que si yéen bu jour ba di ngeen remplir contrat bi si loolu. ginnaaw loolu nag di nuyu ñëpp di nuyu waat waa yëmbal di la wax dafa am loo xamante ni sànq wax naa ko mhm. ñi ngi toog fii di waxtaan ma ne ni dafa am loo xamante dañ ma sas ndax promoteur mënul jox mbër adversaire di ko wëral di mënul jox mbër laa bëgg a wax avance. Mhm. di ko wëral adversaire pendant deux semaines. ci man la man mbër bu ndaw bi xeebadu bi nga xam ne jaruñu ma dara mën naa ni. Mhm. ku ku xeebadu laa du ma dara li may topp sama woyof lañ ma toppee. Mhm. kon tey jii promoteur bi mënul jël avance jox ma ko deux semaines di ma wutal adversaire kuñ ma jox tey mu bañ keneen ñu joxaan ma ko mu bañ. teewul mun ma teel avance bi yàgg yàgg di nga am koo bëreel kon loolu rek sas la. kon damaa bëgg xamal ni promoteur bi moom daf maa lebal ker mais na jàpp dinaa ko fay guddi bu dee mobilisation lay xaar si man. mobilisation la ñuy xaar si yéen. yéen ak ambiance bu taarul stade bi ak lu war ci bu ma def ko dinaa ko def bañ ni ko góor ndooy foo jëlee booy bi. sooba yàlla xanaa ñi la xamul la. waaw amaana ñu xamul ñu ngi naan ko góor ndooy sonal nga ci booy bi booy bi mooy kan. loolu nag dina xam ni man fay na dinaa fay xoromam moom dina xam ne. naar bi dina ko fay xorom. maanaam daal yow bu képp timis nga ku la sa gerte bul sori. non non. yàgg yàgg dina ñëwaat dina mbeewaan xam na li may wax. dafa ma jox avance sama combat bi passé ma ne ko mbeewaan da ngaa tëgg grand combat boo xamante ni su ma ñëwee làmb du duñ ma yóbbul dara ci mbooloo. Eh. te dinaa bëre dinaa daan billaahi mun ma boo ko defee ma siña yow ñetti combat ma ñëw mu jaalo mu woo ma ni ma làmb ji yëpp grand combat bi li nga fa indi indi ko des nga ma deux combat ma ne ko amul problème. te moom si association bi la bokk deux combats yi nag da cee boole bi kon benn laa ko desee. benn nga ko desee. tey jii li ñuy wax chaque jour est-ce que yëmbal Bib Diop dina am combat autorité yi génn jàppale ko. waa ñu ngi ciy jàpp nag mais jàpp bi waroon na gën a gën a gën a gën a gën a am am doole ko nii ndax mën naa ne fii yëmbal ku fi am baaragay am fi ministre Amadou Hott kon tey mbër bu fiy génn rek waroon na yóbbu lu bëree bëree bëree bëri. est-ce que sa sa doom baay mi ngi lay gëstu. Baara Gaye waa kër Dame Diop Mansour moom waaw dëgg la xamante nañ suñu gisantee xamante nañ mais wax dëgg fa yàlla mosul yëkkati benn cinq mille francs def ko sama combat xulil xaq walaw kaana mu ran bu dee donc da ngay dee sax amul télé yéem a wër damay wax dëgg dëgg la mais mosul yëkkati mille francs def ko ci sama combat te sa combat nag ma woo ko defal ko interview kon yaakaar naa war nga mën a jàpp ci sama si yoon di la wax nga jàpp ci combat bu baax na spécial du ay caaxaan soxla nañ drapeau fii ñu ne bib joo fi dugal mbëru yëmbal yóbbu na drapeau yëmbal jëlee na ko arène ñun namm nañ loolu. na si gars yi jàpp waaw. fi ñu toll nii comme ni ñu wax rek dañ laa fekk si yoon nga war dem. waaw dañ la bàyyi nga woote at lan ngay yóbbante sa adversaire. di nga wax bébé Ama mbër nga mbër laa dañ laa fay. fay ma te tey ku def si marchandise dërëm yaakaar nga fekk si ñaar dërëm mbaa ñetti dërëm fayal naar bi xoromam dégg nga li baax li ma ko wax. moom nga wax ma moom laay waxal dama ne yow mi fekkee ba xam dégg nga li ma wax. <laughs> xam naa ne balaa ngay dem si moom dama lay yóbbante si moom. yóbbante ko direct kay fayal naar bi xoromam dañ laa fay fay ma indil mobilisation bu war nga def ko bul wékku ci benn mbër indil mobilisation def li nga war a def ñu ñëw bëre ma jàpp la daan la loolu laa sekk ak yow. lii du làmb joo xamante ni sii dama koy caaxaane te gëm naa ne victoire bu ma fi tegal la damay jël dem te incha allahu rabbi noonu lay demee loo yaakaar yaakaar naa lu ko raw loo liggéey liggéey naa lu ko raw doole joo am am naa lu ko raw man xale laata naanu ma dara naturel wow koŋŋ tit pelin laay doxee non waxuma day naan moo affaire am la naan sax ay buy l'essentiel li ma segg yow mooy daan la boo nee boo nee yow nii nii nii. kon day mel ni moom day naan. ci maa ngi nii. di kële fokom la wala. déggoo ma de kii fokom bu baax bi la jàllo bi xew la. <laughs> nga xamal la. dañu baale nga woote. <laughs> Eh, damay damaa sama kóol nag ñi ma war a woo da ngeen may may ma woote. wootee gu ma boobu ba léegi. xaaral ma xool sama téléphone. <laughs> mais xale ma dafa ma jaaxal. moom nee na liste la yor liste. non yoruma liste de kool bi kool bi laa xool nii rek ñun ma xama nit ñu baax da nga pour élection maire te ñun dama am ay nit yu baax yoo xamante ni si xam samay mbir dañ ciy sonn mais à part loolu ah, ku ñu tuddee drapeau bi nañu jàppale ñun ay ndaw lañ ay jàmbaar ay gaynde ay xale yu ndaw di bëre sa drapeau mooy Mbaye Diop sama doom baay di la nga jàpp ci combat bi. man sasuma la dara jëndal ma benn bolo gi tike rek laa la sas. ah loolu la métti wut moom baay la loolu métti. doomu baay benn bolo gi ticket laa sas. Kanji maa ngi wër numéro am aw ma ko Kanji production gis nañu baax yi ngay def di la ñaan tamit bolo gi ticket soo ko mënee ci man soo ko mënul sax nga xaaral ma bolog bi. Idi man maay bëree ba pare 1000 francs du ma topp. Eh. barki Seydina Mohamed luñ ma fay lu ne. la ca des soxlawu ma ko. loolu am na lépp laa koy def am na lu ma ci leer ndax fekkoon naa la arène nationale nga jël reliquat jeex na amoon naa si lu ma leer. man mosuma bëre ba pare sama reliquat ñëw suñ kër lépp ci ticket laa koy def kon naa am ñu ma jëndal ticket comme noonu damay woo ma Mamadou Gueye Mamadou Gueye mairie Thiaroye Jidda maa ngi lay woo yaa sa xarit Aline Mbaye da si daan jàpp gën cee jàpp maa ngi lay woo bu baax a baax a baax a baax Mor doomu Kër Massar ak yëmbal la dama koy woo ci combat mu jàpp si Amet si sama grand maa ngi lay woo ci combat bi di la woo bu baax a baax groupe ñànk bi yëpp bàyyiwuma kenn ndaayaan Doucouré général ñànk jàppal comme ni nga daan jàppee soxla nañ sa jàppale trop monsieur le maire Bara xam nga ko bu baax bii paase jàpp na si moo xaritam Laay Sagna ak Xaadim Diaw di leen wax ñu gën see jàpp nañ ci jàpp bu baax baax ministre Amadou Hott waa Yëmbal namm nañ la mbër yi gis nañ seen bopp ci yow trop bëgg nañ nga ñëwaat jàpp ci jàpp si bu baax a baax a baax a baax billaay wallaay taalaay Mouhamed benn Diop moom lañ tuddee grand combat bi na si jàpp jàpp ci bu baax soxla nañ nga jàpp ci waa ANES ñoom laa tuddee combat waa ANES nañ ñëw taxaw si waa Faga gis nañ affiche yi ngeen defar rafet na trop yëmbal foo jaar di nga fa gis affiche Bib Diop benn jotaay bi toog fii ñoo dem defar ko def ko surprise taf mbedd yëpp dañoo yeew rek gis ko waa Bango maa leen di woo waa VIP ndari soulagé bu Kër masaar waa Kër masaar yëpp bàyyiwuma kenn xam nga jàkka ja bàyyiwuma leen. waaw jàkka ja bàyyiwuma leen. bàyyiwuma kenn waa jàkka sama paa yi jàkka yi maa leen siyaar bu baax di leen bëggee waa di leen wax seen doom amatina combat ngeen jàpp si si wasifa beeg yëpp def li ngeen war a def mu am ndam ñun ndam rek ñu ñor waa sam-sam une deux trois mafia yi fa nekk yëpp maa leen di woo di leen wax ñu ñëw taxaw ci combat bi seen xarit moo am combat waa yëmbal ma kenn fi ma toog nii sama grand frère yi waa banque bi maa leen woo ci combat bi sama jigéen moo may jox caagi rek sow chaque waaw bu baax bu baax bi. xalil xam nga fay du ma may. te duma ma laaj dara sama waa dëkk waa Masar Diop maa leen woo ci bi waa Lam-Lam combat bi seen combat la waa Koudia Diène combat bi seen combat la Mbajaar seen combat la ah maa ngi woo ñëpp ma kenn Pout Jabaas combat bi seen combat la seen doom amatina bis waa Pout Jabaas maa leen woo baax ci combat baa bàyyiwuma kenn ku lim juum képp kiy jàppale biib rek maa lay woo waa Kër Samba maa leen woo ci combat bu baax Touba Toul xombal tout bépp dëkk bi jàppale biib rek maa lay woo ci combat bi di la bëggee Idi di bëggee sa caméraman di bëggee waa yëmbal xalil maa lay bëggee di bëggee waa yëmbal bàyyiwuma kenn ku lim nag juum yëmbal tout ku tiitaroo yëmbal rek ay see ñu wër yëpp du ma lim benn ay see naataanga laa dëkk mais ñëpp maa leen di woo waa open bi la première la idi le premier mars la open press bi fii si terrain naataange dina neex dina yëngu ambiance bu saf sap na ñëpp teew waaw di bëggee waat ñëpp rek di ziaraat ñëpp dafa am kenn koo xam ne dafa dëkk yëmbal dafa amoon nuyu ko dafa am tur bu ko ñëpp xamee nag waaye tur bi ma ko xamee laa koy woowee mu yaali aan yaali aan bi Diop dalaa woo nee na nga ñëw wuy si ko waaw yow yaali aan su ma nee yaali aan nag moom xam na waaw di bëggee waat ñëpp di ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay ak ku mel ni xaadim si la ñu dem xaadim si la sama grand frère ku baax si man di def si man lu bëri di yëkkati xaalisam di dem fu ne yow ak sa xarit maa ngi leen di woo ci combat bi Aline Fall di woo waa Njar yëpp xalifa yi fa nekk yëpp bépp xalifa bu yeewoo Njar maa ngi lay woo ci combat bi jërë jëf.